mais il faut rendre compte. mais merci mais merci euh, euh je pense que am nañu appel euh, bu am solo euh, mu war a dugg ci émission bi il s'agit de Gorgui Sy Dieng le capitaine de cette équipe nationale du Sénégal bi nga xamee ni jotul woon teew fële ca Égypte Gorgui gi ngi lay nuyu. asalaamaaleykum maa ngi lay nuyu ah, yéen ñëpp. voilà nag waa San Antonio. ñëw <laughs> fii gi xam naa ne eh, am nga lu la naqari ci eh, weekend bi ak eh, fenêtre bi nga xamee ni déjà yow mënoo woon ñëw teew équipe bi ñu éliminer ko déjà ban jàngat nga ci am. ah tout d'abord fu may commencer mooy di di féliciter yaakaar naa fédération bi li ko waroon lépp def na ko. mettre def na effort lépp lu mën pour équipe bi nekk si condition yu normal pour qualifier donc euh, yaakaar naa li xew ni ñun ñëpp ñaanu nañ ko euh, bu ñu sañoon qualifier coupe du monde mais nag ni la ko bëggee euh, dañuy yor équipe boo xam ni daanaka li ëpp si man lañ ko wéer ñëwuma Ibou Faye ñëwul donc tey yaakaar naa loolu rek moo tax tey qualifié ñu quoi mais bu ñu xoolee fenêtre bi ñu woon ak bi am na différence bu bari loolu laa loolu mooy sama jàngat daal ci lu tax qualifié ñu Mhm. kon jàpp nga ni euh, euh, gune yi fa woon def nañu liggéey bu mucc ay mais dafa manqué woon ay jours d'expérience comme yow pour euh, passer benn cap ci compétition bi. waaw feeñ na si donc xam nga expert bon yàlla ma ko yor mais tamit yaakaar naa su ma ñëwoon joué Ibou Faye ñëw dinañ gis benn différence ko bu bu bu wute ak ni ñu joué ni quoi. on a une équipe jeune ay xale lañu yor euh, man maa ci mag te 33 ans la am donc euh, yaakaar naa suñu chance mi suñu kanam on se prépare ak ak yeneen yi quoi loolu moo gën a am solo. Euh, léegi mhm, vas-y góor gi. li gënoon a tax ma bëgg a bëgg ci lii tamit ma profité waxaale ci occasion yi parce que tey ñun suñu basket Sénégal yaakaar naa ñëpp ñu ngi wax xam nga ku ne yaa ngi bëgg a nekk président ñi bëgg a nekk leneen. ku ne di positionné wu mais yaakaar naa ñi nga xam ne ñoo nekk ci biti ñëpp di wax effort yi ñu moom nga xam ne énergie bi ñu am buñ ko ñëwoon def ko ci basket bi ñun ñu gis leen yaakaar naa ñu ngi compté ñaata coupe d'Afrique la ñu gagné tey mais Sénégal dañu baaxoo di wax te duñ jëf te maître euh, amuñu kenn ñun ñëpp ah man capitaine laa ci équipe bi amul ku ma ëpp expérience équipe mille 2008 ba léegi maa ngi ci viandooyu mooma toog génoo nañ xam nañ lu may daj ci équipe bi xam nañ lu ma siy def dama ci def sama alal def ci sama doole def ci lépp parce que sénégalais laa comme ñëpp te ñun ñëpp la war yaakaar naa ñi nga xam ne ñoo nekk ci biti di wax wax bu ñaaw bii di xaj di wax dara maître di ko def lu ne suñ jëloon seen énergie ñëw jàpp ci équipe bi def ci lu baax kon yaakaar naa basket dina sori monde basket nag lu tuuti la Sénégal dañu war a bàyyi di waxante lu ñaaw di ko defante te nekk benn équipe ñun ñëpp bootu ci équipe nationale yàgg naa wax ne équipe nationale ñëpp ñoo ci bokk ñëpp ñoo ko moom kon tey am na wax yu ñaaw yoo xam ne war nañ ko jël génn ko ci monde basket parce que mosuñ ñu ko ci woon a gis du tey la war a commencer. Mm-hmm. waaw mais mais est-ce que ñoom tamit euh, waruñu ubbi comme ça ñi nga xam ni dañoo jàpp ni ñoom dañ leen beddi comme yow li nga wax nii rek ñooñu ñu ñëw capitaliser seeni énergie ñu booloo ko nekk benn est-ce que tamit ñoom tamit waruñu leen ubbil bunt bi ñoom tamit ñu mën a dugg. mais mu mosuñu tëj bunt man deux ba léegi maa ngi fi liggéey naa fi ak ku ne mosuñu tëj bunt kenn man li ma gis laay wax mosuñu tëj bunt kenn. tey ku ci nekk nag xëy na ku ci nekk am na say objectif personnel am na loo xam ne bëgg nga ko amoo ko nga ne comme amoo ko bu ko keneen am. voilà voilà voilà merci gor gi bàyyi mu bàyyi la euh, vieux am na kàddu ci bëgg sànni. may go. oui. bon lenn laa njëkk bëgg. c'est-à-dire euh, y a de sénégalais dañ may laaj naan ma est-ce que euh, San Antonio mënuñu woon xool nu ñuy def pour libérer la nga ñëw. ci fenêtre bi ma ne leen ah man loolu man xaw ma ci dara peut-être góor gi mën na expliquer système mu NBA bi nu mu demee donc c'est l'occasion aussi euh, nga leeralal sénégalais yi que ne euh, pour ñu xam exactement lu tax ci biir saison régulière doo leen mën a ñëw léegi deuxième bi euh, comme que yaa ngi wax par rapport ak defar et tout est-ce qu'il ne serait pas préférable comme par exemple yow nga jël sa baton de pèlerin maître Ndiaye moom la ñu fal comme président nga waxax moom waxtaan ax moom ne ko ah est na qu'il ne serait pas nga woo gaay nga toog waxtaan ax ñoom ngeen xool nan ngeen di juboowee pour jël basket bi tegaat ko ci raay bi ñëpp booloo ànd ñu dem ñaari question yooyu. waaw d'accord première bi mooy comme li nga wax man mënuma woon a ñëw jouer parce que NBA dafa am ay clause yoo xam ne daf ko signé ak FIBA. donc joueur NBA du mën a bokk ci ci ci fenêtre yi bu saison bi dem ministre bi bëggoon na ñëw fii demande permission ànd ak président mais biñ ko wanee loolu moo tax ñu toog loolu rek moo ma teree ñëw man j'étais prêt pour venir jouer euh, deuxième chose bi li nga expliqué tey dinaa la wax loo xam ni man def naa ko en personne jógal naa sama bopp dem ba kër Baba Tandian mhm. toog wax ak moom wax ko mu ñëw jàpp ci basket bi te ñu arrêté yi ñuy def moom ni ma moom mu wax ma ci boppam ni ma waaw yow sama lépp nga sama doom nga sama rakk nga loo bëgg naa la ko defal ma ne ko d'accord maître Ndiaye dem naa waxtaan naa ak moom amul ku ma waxtaanul si du basket parce que tey lu ma mën a am si àdduna basket moo ma ko may bal bi tuuti na torop mais soxla yu mën a faj bari na mm-hmm. tey bu ma demee bay defar ay hôpitaux defar ay poste de santé defar ay leneen ay salle de classe defar ay daara basket moo ma ko may donc du ma nangu ku ko yàq man daal li ma xam lu rafet laa xam lu baax laa xam te du wax kenn lu ñaaw duma ko def mhm. lépp loo xam ne dina defar dina boole ma nekk ci mais il faut ñu arrêté tamit maître Ndiaye mi nga xam ni bëgg ko diaboliser ni lii ak lii ak laa li ko war lépp ci basket def na ko chance nag yàlla moo ko yor gagné coupe d'Afrique ñàkk gagné ñu nag yeneen dëkk ñoo ko nekkoon di joué mais tey on parle de basket bi gën na gagné gën ne lii gën na laa mais football bi ñaata année ñaata milliards lañ ci def benn coupe d'Afrique lañ am benn ñëpp tey fàtte nañ ko mais sport moo demee noonu ça veut pas que ni ku mën mooy gagné tout mais ñi ngi def ñoom lépp lu ñu mën ak lu ñu mënul pour basket bi avancer beneen bi si tegu petite catégorie bi loolu lu ma nangu la te lu ma mus il faut que ñu commencer ci fondation bi mënoo ñëw rek ni da ngay tabax commencer ci kaw. loolu nag day jar ñu toogaat ñu waxtaan suñu biir pour def ko. mais man moom li ma lay wax rek laa basket bi am ma lu ma ko gënal bu doon ay leneen yeneen sport la du ma si dugg sama yoon nekku si. mais le fait ñu woo ma mooy si laa bokk. te loo bokk nag su ñëpp laa daan wax ñett yi. merci ba ku ne war ngaa xam loo bokk. Mhm. loo moom ak luñ la boole. voilà euh, Talla dernière question. góor gi maa ngi lay nuyu donc euh, di kontaan ci intervention bi nga def en direct mais man dama gisoon ci basket bi parce que euh, xëy na peut-être ci football bi lañ ma gën a ràññee mais basket bi am naa loo xam ne amoon naa mag bu ci doon basket ma gis ne ci formation moo taxoon Sénégal doon ci am ay trophée ba sama mag boobu may wax te yàlla na ko yàlla yërëm nekkatu fi nekkoon na capitaine équipe nationale mais ñoom dañ leen doon former ci petite catégorie te résultat yooyu moo taxoon Sénégal mën a am yenn ndam yi donc bu ñu demee ba gis ne Sénégal mënatul am yenn trophée yi mais est-ce que léegi ñi ngi doon def rapport est-ce que ñi ngi doon évaluer est-ce que dinañu former petite catégorie bi nga xam ne moom mooy mën a indi senior ëllëg loolu mooy projet bi bu fekkee ne nag résultat yooyu amul je pense que ne war nañu mën a toog yaatal waxtaan li nga xam ne moo mën a tax Sénégal mën a dellu siwaat au au au euh, au plus haut sommet du basket loolu mais je pense que ni c'est tout à fait légitime. d'accord dégg naa la bala bala ñuy wax bala ñuy wax résultat dafa am lu ko jiitu ci sport. parce que sport tey dafa am loo xam ne il faut nga investir tey boo xoolee équipe yi nga xam ne ñooy gagné dañu investir seen équipe mm-hmm. te demeewul noonu Sénégal tey. entraîneur yi nga xam ni am nañ chance tey am entraîneur bu mel ne Desagana am nañ entraîneur bu mel ne euh, Boniface ak ñeneen ak ñeneen amuñu ko woon avant mais basket bi monde basket moo changé mënuñoo former xale yi rek Sénégal ñu xëy suba gagné loolu mënul nekk da ngay jël entraîneur yi nga xam ne ñooy former xale yi ñu génn dem jàngi parce que basket daf ñu raw su fekkee dëgg rek nga bëgg a dégg basket daf ñu raw mm-hmm. léegi nag pour ñu dabewaat il faut ñun ñu jóg. génne suñuy entraîneur suñuy formateur yóbbu leen Amérique yóbbu leen France yóbbu leen Allemagne ñu jàngi xam pour ñëwaat jàngal xale yi parce que xam-xam mi ngi commencé ci xamuma man man loolu laa gëm léegi nag ah, comme li nga expliqué ni ñu doon gagné nii nii nii moom mënuñoo gagné nii donc c'est impossible il faut ñu formé waat xale yi may leen doole jàngal leen basket basket du da nga mën a njool da nga njool da nga am doole que mën nga basket basket dafa am ñoom te da koy jàng man avant may commencé nii mais jaar naa fépp xëy na nit ñi xamuñu ma Sénégal mais dem naa Allemagne nekk fa ak Olga jóge dem université dem collège jóge fa ñëw NBA ba pare de maa ngi continuer di jàng mais sport noonu la demee sport ñaar rek maanaam da ngay progresser wala nga régresser te boo toogee nag amul benn loo mën a avancer léegi daal li ma leen di ñaan yéen ñëpp comme yéen a ngi toog di waxtaan. dañu fexe waxtaan lu baax ci basket bi monde basket lu tuuti la nañ jàppalante xool nu ñu jàppalee metre affaire yi avancé après bu tuuram jeexee keneen ku ñëw ñu xam ne kooku moo fi nekk ñu jàppalante ko. loolu daal laa gis nañuy dimbalante di waxante lu baax te di ko def te bàyyi xasante bi nekkee loolu daal laa leen di ñaan yéen ñëpp maa leen di jégalu xam naa gis naa seen temps. Ah, loolu daal moo nekkoon samay kat. non c'était un plaisir de t'avoir ci euh, émission bi. Euh.